conseiller municipal dafa yàgg sonn ci askan bi te bi ñuy ut ay tex di améliorer dañ koo fàtte ndax gis nañu améliorer nañu condition maire yi améliorer nañu condition adjoint yi mais ñoom dañ ko xeex ba jot ko ñun tamit conseillers municipaux yi à travers le Sénégal ñu wax ne nañu associé wu nañu def lu ñuy wax le collectif des conseiller municipaux du Sénégal ci noonu ci la ñuy dox di installé des comités départementaux tey jii département de Mbour moo aye woon alhamdulilahi rabil alamin man nii la ñu jiital ci bopp département de Mbour